Touba sam xel nga ca dëkk ba l'observateur las Rewmi quotidien l'info libération vox populi source wa le quotidien walf quotidien témoigne ak enquête ñoom ñëpp a ngi xëy ci waxi màggal gi mbaa ci waxi Touba baa boog ci waxi borom Touba yëral xët mu njëkku Rewmi quotidien li mu bind moo di màggaluk Touba ndamal Bamba ci kaw seytaane am ko ci kaw noon yi moom la ñuy màggal le témoigne nañu màggal gi dimanche la yemoo ak téeméeri lu yoon ak ñaar fukk ak juróom-benn ñu koy màggal 126e édition journal bi tënk wax ji ci la gën a dëppook màggalu Tuuba gi ci la ñu wekku ngir dundalaat sa suqaliwaat koom-koomu réew mi coronavirus bi nërmel docteur Cheikh Bamba Diagne di xam ne ci yéenekaay bi ne ci ay activité de consommation investissement yu mag yu mel ne màggalu Tuuba gi ci la ñu a sukkandiku ngir suqali koom-koomu réew mi ba tey journal enquête ci gëstu bu yaatu bi mu def ci wàll mi nga ñuy xamal ne Tuuba ca kanam mooy ngànnaayal koom-koomu dëkk bi di Tuuba ki yoreel Tuuba borom Tuuba di Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Al Bachir xalifa général des Mourides journal bi dikkaat na ak ñun ci taxawaayam ci xeex mbas mi Walf Quotidien nañu moom sang bu tedd bi du ci taxawaayam feeñ ci réew mi social gi mu dëkkee booloo ak benno gi mu dëkkee woote ci tarixa yi ci réew mi taxawaayam ci lislaam ak njàmbaar gi mu dëkkee wane ci liggéeyal tax na xel xalaat yépp a ngi ci moom sëriñ Muntaxa soxna Baali Muntaxa moom it yéenekaay yu bari xëy nañu ci moom ak jëf ju rëy ji mu jëfalati Xaadim Rasuul ubbi l'Observateur jaare ko ci fondation soxna Baali bi safar gi tàmbale ak léegi bés bu yàlla sàkk danañu tëral lu ëpp fukki nag bu weesoo yéene ji fondation bi am mu di tabax ca Tuuba hôpital bu ñuy jaglal xale yi tabax it ab daara moderne ca Poroxaan fi ak déwén Cheikh Diop mi administrateur administrateur fondation Soxna Baali mi ngi xamal waa l'observateur ne yéene ji fondation Soxna Baali amoon moo di def ci màggal gi juróom fukki million waaye dinañu ca dolliwaat yeneen juróom fukki million muy téeméeri million libération nañu fondation Soxna Baali daanu na ab jël suur soine ko jël bu mag sax jëf ju rëy la Soxna Baali jëfal maamam ja Xaadim Rasuul ci màggal gi màggal gi ak way politique yeeg ni ñuy defam diiraan wutali Touba Walf Quotidien mi nga ñuy a àndal ak it waa yeewi askan wi journal bi nañu waaye ñoo ñu parti démocratique sénégal yi def nañu ko waa yeewi ndax ba ñu yegsee fa lañu fekk waa yeewi waaye ñoom Pape Diop ak ñoom la xalifa bi njëkk a yeewi l'info nañu télescopage moo am démb ca Touba ci diggante coalition yeewi askan wi ak ñi ànd ak parti démocratique sénégal kii di Ousmane Sonko jiital parti Pastef bokkoon ci délégation bu yeewi bi l'info ne nañu bi ñu gisee ak sëriñ ko benn jotaay la seen mel ne naan ko du ñoom rek jëlanteeg Touba jamono ji république bi yëpp a jébbaloo jaabaytoo baa ngi mel ni tulleeg male ci dëkk ba ci ministre yi ci njiital institution yi ak ci yeneen i personnalité yi première personnalité de l'état di président Macky Sall muy nuyu Serigne Mountakha ak ñaari loxo di su jot photo boobee la Sud Quotidien xëy ci xëtamu njëkk journal bi boole ko ak di ñu jukkil yenn ci jëfi président Macky mën a am lu ñu màggale jël na it dogalu bu ñu màggale ba ci ëllëg sa ñu def ko feet sa ñu féete ji ci l'observateur xew-xewu jamono ba fa nekk ëpp naa bañ a fësal ubbil yéenekaay bi benn borom saret bu am ñetti jabar la ñu bett ci jabari jàmbur mu tiit ba kiris crise cardiaque jaare ca faatu yéenekaay bi nañu jëkkëri ndaw si ak doomi ndaw si bi ñu tiimee waa ji muy crise di kadd kaddi def nañu lu nekk ngir sowe ko waaye mujjuta sotti